salaamun aleykum mbàkke sëb gi wala yi nuyoo kuréere aw turam nag baabakar moo di aw turam salaamun aleykum mbàkke sëb gi wala yi nuyoo kuréere aw turam nag baabakar moo di aw turam garam naa la bég naa yi ti say jëf te bég ci yow te sant ñi lay yaakaar kay wut ci yow ngërëm mboolem ñu nuy seeru ak ñu dégg yaa ci gën ñu rëy ñi ñu daa waxtaane sakk nga seeni kem te tiijaana koom xaadir ku nekk fi war di ñëw di suufee ka barkeeloo ka dénkaane ay biram dangay defaral nit ay biram boo ko dul defar nga wocci mu dem yow doo ki ñuy bone fi saxaaru ndigal yaa koy dawal ku la jox mbiram nga jàppoo ko teg foo xam ne xel mënu koo xalam ku duggul ci yow mi dem ku duggul ci yow du dem ne yow daala fii dem mbàkki yóbbu noo nu ci déesee maag sunuy yére yépp yi ñu àndal yépp deqi di dem dugal nu ci déesee maag sunuy yére ak kuréel yi ñu àndal yépp deqi te dal di dem bu kenn mar bu kenn xiifit mooy bu tilim bu lëf metti nit nun ñépp may nu wérug yaram balaa bépp buntub sàng ñëw fi sa buntu bi danaa am li may wut mbaa ma dee fi sa buntu bi banaa bee ba buntub sàng ñëw fi sa buntu bi danaa am li may wut mbaa ma dee fi sa buntu bi te saa soo ma nee dellul ma dellu te dal di ñëw bu may dem di ñëw ngir mbàkke yow daala fii fabe a sàkka koy toggal akay togg lay faral te yow daala may toggal akay togg may dabe ku dul yow dafay suufee lekk xaññe ay yëfam te yow nag dangay suufee ka jox ñépp yaa tabe lu baaxay sa mbir yow doo xam ne taarul du yow du sa mbir ci àllum mbañante bi te nekkoo fi ñuy ka soowoo ka def lu bon dangaa dem fa yàlla yi jaamu génn nga gott bi dangay dex gu laabal ñépp nun ñépp yaanu te tilim yaa nu tee fees ak lu soof ak lor ak sobe defar ngaa ñi baaxuloon ñépp kenn xàmmatul ko bon ku jóg nee fi ndax kii buura am moo di xejj bi dangaa fekk yow nit ñi ak bir yi bokku nga liy janti lëj lëj yépp yaa jiitu yaa xobe sa dundu gi moo li ngay wut ci bépp larte yàggal sa dundu gi da ngay dund wer faw yow yal na la yàlla may li ngay wut ci bépp larte yàggal sa dundu gi te dundu gi moo am bopp am ful am njëriñ réer nga sew baaxal lu bon yaa di sang bi mu jóg cant ak galanum ngërëm ba tëggal sëriñ Tuubaa ki xëy jox ma ab galan wutal naa ma ndomb ak tànk dolli na ma galen te may na ma ceexan ngiriñ sant naa ko man ka koy bañ du man mi waaje koy aybal du man te koy jëw a kay sikkal du man ku ko noonu bon ngërëm mi le moo gën mépp ngir ku ko wàcci bon ku wàcci ngërëm mi dal di jaamuy xërëm xaram te yàlla ak yonneen te daala fi nekk kat te noo di sëriñ bi moo di ñoomit ku wet fen li lee tax ku dikkul jox ko say dangay xaran te doo ab sëriñ doob ceddo ngir ceddo yaa la gën sëriñ dëgg day xam yàlla xam la mu def bu wér mu nangu ko dénkaane ay biram ay biram yéen te ab yéefar yi day nekk ci kéefaram gu wér te mooy mooy gu wér tey fuuna kay seben li lee di cëriñ lee moo di kéefar wéral xarit ku wér am lu wér toppal sëriñ bi la moo fi man li la de këriñ lee moo di kéefër wéral xarit ku wér am lu wér toppal sëriñ bi moo fi man sëriñ boo fu dégg ak boo fu seeru du lëf mu man mosal biib sëriñ boo mos bu dul bi mos posen murit yi mu àndal rekk ñoo gën sëriñ sa woon bu bis penc baa wax ji ñu xam ne ju wér la woon xamal léegi yow wax ji yow te soo ci am ngiram ne yekkeeg sa mbir jébbal am ndam akob garam xamal saxaaro ngaram gaa ngi ni tey fi nun ku bëggul lu dul dem na jóg ñaani paas saxaaru ngaram gaa ngi ni tey fi nun ku bëggul lu dem na jóg ñaani paas te mbooleem ku duggul bu déxee ba wéy nga rus sonn am gàcce nan ñaani paas di sàggan ba muy déexi ngay jóg di dox te doo yegg lii ay lanan ñaani paas te jóg léegi daw dugg moo gën di nekk ba muy déqi ngay yuuxu nan ñaani paas di yuuxoo kawakkaaju muy daw di wéy du taarub mu kallaf jógal ñaani paas xol ak jur akub aw ndigal faaw nag yëgal yow na yi yett ngay ñaani paas te doo tabbi mukkir sa xaaru ngërëm te jàppoo bu wér ñett ñaani paas ku fab xol fabug jur fabug aw ndigal joxub sang waatal ne doo ñàkk paas cofeel ak rafet njort ku wóolu ku fab yett jox ko am ngën ji paas ma far wax la nag lay saxaaru ngërëm ba dootoo ku réeree ti doo réere paas saxaaru ngërëm moo di tey bamba mi ña cas nag sa mbir jox ko looloo di paak te bambaa ngi nii nag di yab aw nitam jagam bëgg nga raw jógal jox ko paas bu cër yépp gantoo defu su lëf jafe defu su lëf bu yombul amus bu cër yépp gantoo defu su lëf jafe defu su lëf ngir yaa ngi cib lolli yow taab lolli buy wéy amus lëf jafe jagam réere ngab lolli lollee ngi nii wér ak ak doole lollee jafe ku sab lolli ñëw nag ba say yëfu ndaxus la dan ngay ku yombul ko maasam jafe jëfal guddi jëf bëccëg ak sépp saa ba koo seeru naa kii jëfam jee jafe ku def nii ci sab lolli doo jeeli yëfu bu nooree doo xaar yewoo jafe burul kon nga meel ak ngelaw koo ma ngay farlu ngir xam ne lee jëf jafe bu nit nee lasar ñépp naa dootu jóg mu xem nee ma jóg jëf te jóg jëf jafe ku jëm ci jatay romb xaalis di wéy bu yeggee di gis yëf yëte njëg jafe xarit dëgg ngooral ci xaalis bi yow te kat léegi seerub dërëm sax jafe ngirum mag akuk ràgg akuk dee ngi ñëw bu ñuy yegg si def lëf lu bon bon jafe defal yàlla as lëf bu mujjee jafe amus lëf ci yàllaa ti gën koo jafe defal yàlla aslëf bu mujjee jafe amus lëf ci yàllaa ti gën koo jafe banaa lépp maa ngi ci sa atte tey faxas naa lu dul yow falang naa ko it banaa lépp maa ngi ci sab naa ludul dul yow falang naa ko it naa lu dul yow ci man mii mu falang naa ko it te ba dootul ñëwit fabal nag sa bopp ak def ci man te def mam murit dëgg sab xarit dinaa wax ci yow lëf lu tax ñépp xam ne kem amul soow ak penku it ba ngay jàppu xaalis di dëddoo bañ ak ay sànni ci dex nga képp nit ba ngay jàppu xaalis di dëddoo ka bañ ak ay sànni ci dex nga képp nit ba ngay wéet muñ ak dunde ñax fu yéefar ya boobee nga fab ñépp not ba ngay jàng kay bind ñuy fooka mooy fis ak wet nga sut mbàkke mboolem ñu ba ngay jaamu yàllaa ka woy Mustapha te kenn nekkul ak yow nga am say mébét ba ngay a kay mar te dencoo praay kenn say lor nga semmal ñama balay kar ci daawur gannaaw ak kanam te yàqul la ngay def nga raw am xelit ba ngay dam musang nii te kay toggu ñam ku jóg romb lay wéy nga dem yaaramit bañuy lii takay maa ngay jàpp yow akay julli boobee nga saf yàlla it bañuy woote ngay julli bañ wuy jiwoo bësal mën nga def mbég ci yon ba it ku lay toppandoo tey ci lëf moo ko dof ne doo moroomam te doo maasamit ku lay toppandoo mu dox fii nga dox ku lay toppandoo ci lëf moo ko dof ne doo moroomam te doo maasamit ku lay toppandootee mu dox fii nga dox ba ñëw fii ku ñëw ya rafet moo gënit te kuy ruuja kay bay bu dee toppandoo kafar màngu def ay mbiram yàqukat ku def tey lu dul jox la boppam bu wér te bañ laa defum naw la day alkukat dangaa dox fa bëri yépp dox nag te dox fu kenn mës lu dox am nga jaajëf ju mat dangaa boole waa àll ak waa kërit torox loo te seeni ndam lee rafet demoo wacc saw nit ñu bon alkufar dangaa dem te fam ñépp yóbbaale fat dangaa man ci kër man ci ab àll yi ko xam-xam ne yaa ëpp ñépp fit kër àll noo bokk nag yem ci yow lu am doo ca bew doo ca jékki xulit ku dul yow gëtam yaa nga jëm genn wet te yow nag sa gët yaa ngi jëm jépp wet ku dul yow dafay may boroom mam ba bët bu wér mbaa mu far may njabootam nga gët nga may yàlla yow bët te may ñépp bët sa wet génn tëkkul sa wet yépp a set ku dul yow bu geewet setee gee tilim bu geewet jotee sa kiit gee du jot sa wet yëpp set yow sa wet yëpp a jot bégal baarakallaahu sam kem amul te noongoogu faw it di say dof yu rëy fajal yaa di fajkat te yor ay dofit doxal faw diggante ñépp ak tawat ba kenn dootu gis koy jaloo kay tawat na xol yëpp far sedd mbir yëpp jub bu kenn ñàkkati yiw ba fir daw siit te mboolem ku lay topp nag dee ko woon lu koy dolli gëm ak rafet njort it te fàggul ci mboolem ku lay joxu mbiram te leeral ko leeral barab bam ne it defal gaa lay sopp kay topp te nag yow ci suuf ak ci kaw sa mbir rëy fi waa suuf ak waa kawit na ngay nun faw nuy bég ci yow nu far dundu ci topp téeméeri at te sun at mu ñëw wecc téeméeri at yoo ab jaamu kat jaamu sellal ko te leeral te baaxal te neexal wéral sa diggal nu nit faaw doy lul nu it te may nu wér ak way ci loo nuy digal ci saa lépp ngir yàlla ak yon ne nit te bépp murit daf ma mbég ci xolam te dàkkul ma naa fi xëkub yee farit sabab xol na fees ak sa ak sa yëf samay cër na muccit ci loo diglewut la ngay soppa kay tànn nay sax ci man te naa cay saxit faaw lii laa mébét yoral xol yor cër yi yor lépp nag yëlëb lu dul yow ci man mi mu rot yoral xol bi yor cër yor lépp nag yëlëb naa lu dul yow ci man mii mu rot lu dul sëriñ bi le man mii sànni naa ko bu wér lu dul sëriñ bi du man koy deeti jàpp ko yor lu dul sëriñ bi le man mii sànni naa ko bu wér lu dul sëriñ bi du koy deeti jàpp ko yor te lépp loo xam ne lii daanaa ko jàppa kayor lu dul sëriñ bi la xam naa tey ne dof la gu biir man génne naa sama xol bi ay xarit ak i jur wutal fi bàmba ki gën foppi xarit ak i jur def naa ko ab sang def ko soppe def ko xarit def ko sëriñ def ko bàyyeeg ndey te yàlla na ma yor jox naa ko saa bopp ak saa ñëpp yàlla na ma jox boppam te yàlla na ma jox léppam te yor sama mbir sëriñ bi te yaa di jaamub yàlla maa di sa bopp foo jëm ma topp la ndax loo root le mbàkke ma for sëriñ bi tey yaa di jaamu yàlla maa di sa bopp foo ma topp la ndax looroot le mbàkke ma for sëriñ bi ak sa darajey bopp ji ak yàlla ak yoneen ba may ma tey ji le sa ngërëm ak sa bopp may go sotti koo xam ne may nga ko lii mu sotti sëriñ bi ak sa darajey bopp ji ak yàlla ak yoneen ba may ma tey ji le sa ngërëm ak sa bopp may go sotti koo xam ne may nga ko lii mu sotti ak darajey yonen ya ak saaba ya fegal ma lorte may ma ngën ji tey ak darajey say mbokk yépp ak say murit may ma alal ju sell la ngën ji murit ak darajey Mikaayil ak Jibriilit dénk ma xéewal gu rafet wóolu ma it ak darajey malaaka yépp may ma barke bu màgg ak fan gudd wuyu ma ak darajey gaay Badar yi yépp may ma mébét ya ak ndimmal yi yépp ak darajey gaay ca kaaf yépp jagal ma faawu may ma jagle yépp ak dara darajey képp ku baax ak lu rafet sarax ma gëm gu rafet ak muj gu rafet ak darajey gaa yi fasoo dem àjjana defal ma saateeg ëllëg muy àjjana jagal ma fii jagal ma feete may maaw jagle gi fii ak gane feete yor ma tiisu ëllëg ak tiisu tey bu ma ko gis bu ma ko dégg ku ma gis bu mu ko gis ak darajey képp ku xam te jëfe ko may ma ma xam lépp lu gën te jëfe ko ak darajey bépp jullit bu bégaleef bégal ma def ma faaw may kuy bégaleef sëriñ bi yow yaa war a sant yàlla te li tax nga war a sant yàlla koo xam ne kii daana la siisa ka añaan mujj na tey jii di la xaaraana ka ñaan koo xam ne kii daana la def maas ak moroom mujj na tey jii di la def sang ak boroom koo xam ne kii daana la ñàkke aajo mujj na tey jii di la may ay aajo koo xam ne kii daana la may nag aajo ñépp a ngi mujj di ko may tey aajo ngir gis nga Ibra faale ngi ñuy faale te xam ne kenn daawu ko xëy di faale ak Ibra Faati mi kenn dul fàtte te xam ne deesaa na ko dox di fàtte ak ma ndumbe mi kenn dul yàbbi te xam ne kenn daawu ko seex bay yàbbi ak doomi anta jile mel ne jant te xam ne kat mi ngi meloon ne bant aadama gëy yaa ko defoonu sàll yal na ko yàlla dolli may gu sell masamba joobi te ngii dee fi joobe te yaa ko may may gu ko dee fi joobe te Ibra Saarit yaa ko fal may ko ngërëm ba képp nit di ko siyaara ak gërëm mi may rek ngaam am amoo ko bon gaa yi ma tudd ak ñi ma tuddul ñëpp gën ñi nga defar mbàkke ma nii su leen a ma nii su leen a boole xam defar nga gaa yoo xam ne sax xamoo leen defar nga gaa yu la xamit nga xam leen defar nga say mbokk defar aw jaambur ba ñëpp jàng jàpp yow sax njaambur yaa tax ba wala kajoor ak ki jaambur di def yiw ku la sikkal dob jaambur ak cant war na bu wér nun ñi la ëw lim nuy war war lim lay war a koraw war na laa sant bu wér yow bamba nga war a sant yàlla ak yonen ba sant ga kat cant gu kenn santul waane yëgal ne sa may gu tuutul sang bu nekk yàlla may na ko may waane muy ab sang may gi mu la may sang bu dul yow yàlla ay yëfu la ko may yow nag dalaa sopp ba jëmmam la la may bu yàlla doon as ndaw ma xam ne yaa ko jël sang yi nag fa yëfam séddoo ko jël moo yow mi jël jëmmam ja nag kuy sant xanaa di sant kay wëree sant santal te santaana liggéeyub sant te ku la sant la seeti na ko sant fab naa samay mbir joxla la dimbale si la te ku ma déggal dikk dimbale si la woo naa samay rakk te woo samay mag si liggéeyub cant bii ku dikk jag woo naa samay bokk yu ndaw yépp ak yu mag si liggéeyub cant bii ku dikk bég woo naa samay bokk yu góor yu jigéen jëme ci yow mi jubalu góor ak ku jigéen ku dikk nag boppam man di kiraate maa ngi lay sopp ko gëm te maa ngi musul lépp lëf lu dul yow ci lépp loo xam ne du yow du aw yiw musal ma nag ci lépp lëf lu dul yow te musalal ma man itam ci lu dul yow mosal ma nag ci yow mi gën lu dul yow te may ma nag ci yow mi gën lu dul yow man naa la mos te bu ma mos lu dul yow te naa la am te bu ma am lu dul yow naa ne ci yow nga ne ci man te sol ma baa fees a fees ak sëy ngërëm nga yor ma fab ma dugal sa xol bu sell te bu ma génnati sa xol bu sell bii fabal sa bopp yi dugal sa sama xol te bul génnati mukk ko sama xol def ma sa mbég mu rëy te dem ma sa ngërëm lu rëy a rëy ma di sa mbég di sa ngërëm lu ma gërëm nang ko gërëm te loo gërëm naa ko gërëm ku ma gërëm nang ko gërëm nanuy daje daje daje daje daje ci loo gërëm te bu ñu noppeetee daje bala nga maa woo naa la wuy si far yow bala ma laa wuy si nga woo ma far yow bala nga maa soxla ma far la soxla bala ma laa soxla nga far ma soxla foo jëm ma jëm fa fu ma jëm nga jëm fa foo jóg ma jóg fa fu ma jóg nga jóg fa nga di ma sant faw nag ak gërëm ma di la sant faw it ak gërëm tey noo ngi lay sant ka wóoloo ko gërëm te ku am war a saxal cant ngërëm yaa seet xol guyu yaa dalum xel wurus nga yow waaju for sant asal te takk fu mu jëm ngën foofa te daal di suuxal gaaye waajoon foofa te ku la tëkkul doo ko gis tekki dara lu yàgg-yàgg doo ko gis fajit dara maa sant dëgg dëgg dëgg yàlla te yaa waral mbàkke ma sant yàlla boo ma ba woon ak yàlla kon am ci ma def ngir sama ndofoon gi ak réer gi ma réer boo ma ba woon ak yàlla kon am ci ma def ngir sama réeroon gi ak ndof gii ma def man sant naa la nang ma santal yàlla ci mi leeral sama digg ak yàlla man sant naa la nang ma santal yàlla ci mi leeral sama digg ak yàlla sëriñ bi fas naa la yéene sant cant gu rëy ngir yaama may te ko am xel sant waaja ko may man maa fi daa jub di xaaraane ka sarax tey maa ngi xettali ay baayeeg ni jaaye ki ndey miskin mu suufe mu bon laa woon di nga jox ma gaayu ma fii ruujal bu gaawa ka bay am naa lu rëy lu ma daa njortoo ka laaje kewut am naa ba am lu ma foogul jox lu ma doy soril nga may lor soril may gàcce may nga ma ndam man jàqatul rotatul saa may gi may gu doy man mi amul woon xamul yow ngay amal di xamal ba maa ki boole ama xam-xam du yaa di kanay saa ji mujj rek ba dikk fi yow nga soppi may jëmmu yow doo nax sa waaye ka samay moroom ak samay mag yaa ngi gém bu di xëy jëm sama tool ak bay may xëy di sant ka woy am yi lay may te santul yeewul góorewul nan sant léegi te moo gën nekk ba sant di wéy la jëkk tey jile daawoo jis ko sollu mbabal yaa dikk sànni mbabal jox ni draaki tubéy xamal ne kenn du fi ni tey jii ku ku la gëm tey topp say wax ku kii moo di dof ba di say yërëm nu faawu te seetaani yar di dal bisub layoo booba yaakaarun fa waaju la mooy bun dee fi wootee ka jàngi téere ak di layoo demal layal nu ne yow mii koo layal dina yey bun def lu dul tàbbi firdaw see ka wàcce ke bun njekki nun di la yoo yow lan fa def sunu lay bun def lu dul tàbbi firdaw see ka wàcce ke bun njekki nun di la yoo yow lan fa def sunu lay ma jóg yàlla yónneen ba wallare man wu sell sell ak sëriñ Tuubaa te jublu ci ñoom ngir ñoo ma doy ñoo ma dul war ñoo ma dul defu ay ñoo xam lu bon li ci man léppit ba noppi ne xiim ñoo xëy taxaw ci samay mbir xool ma fab ma ma jóg ñu ñu jël ma dëral ma new sàkket wu ànd ki buum ñoo tee samay tànk jëm ko ñoo ma fàggule ndam ñoo tax ma am sutura mucc faaw ki koom lay ngir ci man jëm ci ñoom ak képp nit ku ma am ak képp nit ku ma am ak lépp lëf lu ma moom la ngeen ci man jëm ci ñoom ak képp nit ku ma am ak lépp lëf lu ma am ak lépp lëf lu ma moom lay ful la dëgg te dig am bopp dëgg ci mam may leeni gët kuy ci ñoom ak doole tey mooy juum yàllaa na dàkk ci ñoom ak seeni yiwum ñu juboo ku nekk ci ñoom ak jàmm jot ci soroom yàlla gërëm kii gërëm ko sant keeku ne faf gërëm ma sant ci man tàllal ma yaari loxoom yal gërëm kii gërëm koo sant keeku ne faf gërëm ma sant ci man tàllal ma yaari loxoom yàllaa di ñam wa te yonneen baa di ndab la ko def sëriñ bi ku la dee koy tibbe fawu ci ñoom yàllaa di ñam wa te yonneen baa di ndab la ko def sëriñ bi ku du la dee koy tibbe fawu ci ñoom ma sant laati te tagga laati ngir may nga maati bégal nga maati ma sant laati te tagg laati ngir may nga maati bégal nga maati yokk nga maati dolli nga maati yërëm nga maati sarax nga maati yow yaa di kenn koo xam ne kenn déggu ko fenn gisu ko fenn donnu la kenn kenn du la donnu yàlla du donnu di ko donnu sedd nga ab xol seral nga yéet xol dalal nga am xel dalal nga xel yi dàkkul nga nu ay faaw akuk mooy ak képp kuy mooy jox nga nu ndimbal kuréere am koom yow daala dim koom xam laa am koom am laa am koom ku la xamul moom réer na am koom ku la amul moom ñàkk na am koom te ku la toppul xelam a guddul ku guddu am xel day topp sangam képp ku am gëm te yaa di sangam ku nangu boppam ku gant boppam mucc nga raw nga rafet nga set nga jiitu nga for nga lu kenn dul for kenn du foog raas ndaree ku lay raas yàlla na ñu lay raas yàlla na ñu lay for kenn du foog raas ndaree ku lay raas yàlla nañu lay raas yàlla nañu lay for yaa jara féeteel yaa mata féeteel yaa neex a féeteel yow lañu féeteel xëy noo ki mbégteel wër noo ki mbégteel duy noo ki mbégteel ree noo ki mbégteel yàlla nu xëy naan ci géej ji rahmaan ba maan di rahmaan tey dun na kay beel yàlla ñu raamaan te mbóoti raamaan ba maan ca raamaan ñëpp te barkeel yàlla nu raamaan te mbóoti raamaan ba mag ca raamaan ñëpp te barkeel yàlla lu dëkk ci jub te dëkk ceeg mant dëkk ca mbër mandam ñeel yow yàlla yaa rëy sa àjjanaari yaa ko mayu rëy faf nu ko jagleel yaa ak pay yaa ak may yaa ëpp ab jay rusloo nga dammeel xëppal si yi wii ci sunu ay wii te jàppaay wii rey def ci bàmmeel xëpp nu pal gii te xëpp jur gii ci sunu kër gii yaa tedd terleel yaa yor ngërëm yi yaa dërëm yi yaa saytu ndam yaa ñam yi bégleel yaa mucc musleel yaa tedd terleel yaa tabe bégleel yow la ñu féeteel yaa mucc musleel yaa tedd terleel yaa tabe bégleel yow la ñu féeteel ma fab fee xalimaa kii daa te santati la te dellu fab xalimaa kii daa te la ma fab fi ay xalimaa daa te santati la te dellu fab xalimaa kii daa te la man jommi waaru naa bay waare ngir li ma te kenn du ji li ma gis man mii de jommiwu maa bu may dikkee ba ma naan jiig may ko am gu ne day sëriñ bi doon leeti mag may nag te naa amula kuy saa xarit mbaate ngay saa mbokk foo mën jëm dikkal te may ma liggéeyub cant mbaa ma bala may yaa ngi may wër te may goo sas la bu rëy ku dikk bay le ma boo lottee ma bay le si la kuy sa kulub tee moo doo jekki doo asele wit te boo amee nag ba tax laa jekki yow ab dag bu dee dagu buuram nag baam ngërëmam day sant tey dagu ngir ab dag dafay xarala teb dag bu làqee ngërëm bay tax dagam ga di la day daldi les laa xaw la daggu xala yow doonte buura la jox réewam wi la xasul kon foofu toll mu fam doon lu rëy jëme la bul geesu bis lu ko mooy bul songu bis lu ko mooy ngir wut na mboolem lu dee faa fay tukat xare la la nga koy liggéeyal la muy rëy rëy di xala fay ba fay ga mu may la may gu nun gaa yi bàmba yi noo ngi wéy ba àgg bu wér te lépp lu nar a tey yegg nu jóg fase laa nun gaa yi bàmba yi noo ngi ba àgg bu wér te lépp lu nar a tey nu jóg fase laa sëriñ bi yaa nu fayal taalub tawat ba mu fay budul ko nag yow lu bon am tey gërëm naa la bi yaa nu fayal taalub tawat ba mu fay budul ko nag yow lu bon am tey gërëm naa seytaane tuuti mu bëgg nun ñépp tuuti nu rët yaatee mu bég yaanu teerot man gërëm naa la seytaane tuuti mu bég nun ñépp tuuti nu rot yaatee mu bég yaanu teerot man gërëm naa la yow dong nga nuy wëri luy jomm jomm di wéy di tappalee kana xee lépp gërëm naa ay waa ngi daj kap mboolem nit ñi tegginu nun yaa tax mu tegginu moo tax man gërëm naa la ku nee ngi rab rabi ngir xiif ragal ndare nun te yaanu tee boole xiif rët gërëm naa nu may nga num dund dundit bu wér bu rafet te may nga ndox mu doy jaajëf gërëm naa la man fab nga mboolem lu ñuy teg saa loxo yi fab def ma sab loxo man mii kay gërëm naa la manan nga maa bañ may ak yëg te sànni ma fee te def ma fab ne dundul man gërëm naa la man say tuul sa njariñ man say tuul sa lore yaa may jariñ di ma xàllal lor gërëm naa la gisoo ci man sa njariñ séenoo ci man sa lor te jublu maa ki njariñ yow kay gërëm naa fagul nga nuy may doy faf ñag nu ñag bu nu daj alhamdulillahi seexoo man gërëm naa fagul nga nuy may doy faf ñag nu ñag bu nu daj alhamdulillahi seexoo man gërëm naa tawal nu waame wuray wuy dindi wépp maral te indi naataange ak xéewal gudul dogati tawal nu waame wuray wuy dindi wépp maral te indi naataange ak xéewal gudul dogati xol yaa ngi set te xol buy set yaa ko waral wutal nu teena ki géej ak dex yu dul ferati yaa fi defar waaju bon te fekk waaju koyoŋ nga def ko girme ba foo koy gis ma ngay serati mbuum ak sëbëg fasu par yi rekk lan fi xamoon tey naari góor a ngi sant jur gi noo ngi ko teg dorab bu nooy ak pajaas ak yaanu ko may yaa xeexe dàq wasal nan bétte bun merati ba ngay xaree kadagoo kay farlu noo ngi nelaw ba yàlla fal la ku pal nu muy defati yeewal te fedd li say baadoona yaa ko yeeyoo dawal nga jàpp nu def nuy lar yu dul dawati bandaa werantee ka wax naa moo ko xam ku nu gën yow yaa ngi noppi te koo gis naa ko bul waxati moo tax ba ngay soog a jóg nuy wax ne kii dafa dof nga mujj far di nu faj gii lu muy loroti moo tax ba ngay soog a jóg nuy wax ne kii dafa dof nga mujj far di nu faj gii ndof lu muy lorati mboolem ku daa wax ne yaa dof kooka moo di ka dof yow yaa di nit te ku dul yow wax ma lum fajati yaw bi dënn yi dundal sunna rey fi daa li tax ñu waaru te naa bii dof du bay sayati yow tas nga làmbu yi daa gor jàpp mbër yi defi murit yu mokk yi delluy mbër yu dul tëbati sàcc ak bandaane la dee faa def lu yaakootu xal ba xam ne kenn gisatul sàcc ku fii bindati njaaloo ko fenn aka fonku juddu yaa ko setal ba déggatun fi la kuy njaaloo akay feneti toroxlu ak suufe ak faj soxla moo di sa kër te kër gudul gile yow dootoo ko koy duggati yaa da du lépp bon yaa jubli wépp yi wit koo xam ne roy na la sax dootul jege moyeti duggante ak yow kajoor ak jaambur ak bawal ak fuuta ki saalum ak kii waaloo ñu fi ësati yow yaa nu may jam tax noo jekki yaa nu musal reyante daana fi am fi am tey kenn du jóg reyati neexal nga bëstul bi may nuy taalu bee kii dërëm téeméere kii junni dootoo gis ku koy nawati xam ngee wolof bu fi bay am junni yaa ko waral ku topp waajula mooy kokee du am ndamati ku bëgg nam na la xam ngir yaa di kay maye ndam ku bëgg a jóg nga la xam ngir yaa di kay yëkkati maa waaru ngir yow teew day tey nga wax ma lu xew ba man mu bon mi le mooy woon mu naan jaxate sëriñ si jombul kuy lum seeni tur du ko xam te moo na mboolem sëriñ soosee ku lay royeti waa Màkka dikk na ak waa Misra tey mureto yi lay murit ku ko am moo jaalu muy bëggati yow waane doo faale nit doo faale it am nu nit doo geesu yow lëf lu dul yàllaati doo yàlla yar dootu bew ngir dootu gis lu ko mooy te dootu xam ne ka koy soof ak ka koy taggati ka lay taggak waa ji fii xastee fi bokk yemoo ku yàlla tagg ba way dof yaa ko fay xasati yaa jaamu jaamu gu yaa faddu faddu gu yaa jiitu jiitu gu doo gis ku lay jotati yaa maanu